tous ami chers fidèles internautes je ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di amane mbégte ci chaîne leader bi lee di VIP People TV la chaîne leader mais aussi c'est la chaîne qui informe juste en temps réel bienvenue dans votre émission revue de l'actualité comme nous leen koy présenté euh, tous les bu ñeer réew mi fii la ñuy toog daal di leen koy euh, digtal li nga xamante ni rek moom moo ñeer réew mi jamono ji fees dell ci li nga xamante ni rek moom mooy réseaux sociaux yi ñëpp di ko waxtaanee du leen rek lu dul arrestation bu Ousmane Sonko démb foofu nga xamante ni rek moom mooy site kër góor gi ginnaaw bi mu julli jee ajuma ba ñibbi ci këram moom sax moo ko daal di xamle sénégalais ci compte euh, Facebook am ne ba mu jugee juma di ñëw këram dafa am benn agent de renseignement généraux boo H24 mu ngi buntu këram di ko filmer ba mu ñëwee nag dafa ñu ko carrément arrêté sa euh, film bi nangu portable bi ne ko ubbi ko nga effacé image yi nga xamante ni rek daal di nga koy jël ci man ba mu bañee nag ci la jël li nga xamante ni rek moom mooy euh, téléphone bi daal di dugg këram ci biir nag li nga xamante ni noonu la waxee moom Ousmane Sonko ci page Facebook am je demande au peuple de sa tenir prêt pour faire face à ces abus sans fin daal di woote li nga xamante rek moom mooy askan bi ñu génn maanaam am buñ ko arrêté mais nag d'après ni nga xamante ni rek noonu lañ ko euh, jotee ci ay euh, xibaar wala noonu lañ ko euh, bindee ñu ngi xamal ni rek beneen feuilleton bu bees judiciaire ubbiku na ci ki nga xam ni rek moom mooy Ousmane Sonko parce que nag jamono ji ginnaaw bañ ko arrêté coow bari na ku nekk di joxe li nga xamante ni rek moom mooy point de vue am mais bu sukkandikoo ci li nga xamante ni rek noonu la ay avocat mu waxee ñu ngi wax ni rek Ousmane Sonko li koy toppee du leen rek lu dul appel à l'insurrection insurrection ak vol de téléphone euh, portable ñenn ñi nat ay juriste ñu ngi wax naan rek comme euh, jàpp nañ ko loolu lañ bëggoon kon nat contumax bi dafa war a euh, tëpp maanaam li nga xamante ni rek moom moo ko ñeel diggam ak Adji Sarr procès bi daal di commencé waat à zéro mais ndeke nag demeewul noonu moom Ousmane Sonko liñ ko jàppee ak li nga xamante ni rek noonu la ko yenn ci juriste yi di waxee c'est même chose parce que procès Adji Sonko. Euh, euh, maanaam bokkul wala takkewul lenn ak li nga xamante ni rek moom lañ koy toppee muy appel à l'insurrection ak vol de téléphone portable Ousmane Sonko nag ni may waxee ak yéen nii mu ngi ci loxo takk der yi maanaam démb euh, foofu la fanaan ginnaaw rek bi mu jàkkaarloo ak enquêteurs yi nag moom Ousmane Sonko bépp question boo xamante ni rek laaj nañ ko ko nangu ki nga xam ni rek moom mooy procureur bi ci boppam moom moo demandé à ce que rek ñu arrêté ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko ci biir nag loolu ba mu xewee euh, buntu këram ci la nag waaye GIGN daal di ñëwee këram ñuy xamal ni rek dañoo sonné plusieurs fois kenn ubbiwul ba ñu tëbee nag euh, cëppeelu ci biir kër gi su la Ousmane Sonko daal di génne laaj leen lu xew ñu ne ko nag euh, vous êtes en état d'arrestation mu daal di leen ànd ak ñoom dugg seen biir oto daal di dem ci ci fi nga xamante ni rek foofu lañ ko yóbbu muy brigade acte des affaires euh, générales foofu la ñu yóbbu moom Ousmane Sonko waaye nag li nga xamante ni noonu la ko nit ñi di relater à travers les réseaux sociaux yi dara amu ci maanaam kenn euh, violenté wu ko amul benn euh, maanaam jàppal bàyyil boo xamante ni rek am na digganteem ak ñi nga xamante ni ñoo ko jël si woon muy waa GIGN parce que nag ba mu ba mu ba mu leen laajee ñu ne ko nag dañ dañ laa arrêté dafa ànd ak ñoom dugg seen biir oto mënet mënet sax takkaluñ Sonko procureur bi nag d'après li nga xamante ni noonu la ñu jotee dossier bi moom ci boppam moo chargé li nga xamante ni rek moom mooy euh, boobule dossier parce que nag dafa ngàll ci dodd Ousmane Sonko yi nga xamante ni rek daan na ko def ñu koy tuddee appel à résurrection moo xam euh, ci ay image lu mu toog wax wala lu mu bind waaye lépp daal loo xamante ni daal defoon na ko ngàll nañ ko daal ci euh, ndoddam maanaam dossier bi daal boo moytuwul d'après li nga xamante ni noonu la procureur bi waxee moom usmaan Sonko dina ci tëdd de cinq ba euh, vingt ans de euh, prison waaye nag ñu ngi ñuy xamal itam euh, tey ginnaaw démb rek manifestation yi xawoon na yëngu fii tuuti ci Dakar mais Ziguinchor itam ñu ñuy xamal am na mais tey daal ba ñu yeewoo gis nañ lépp rek daal di sedd waaye nag ay avocat Ousmane Sonko tam jàpp nañ ne lii nga xamante ni dañ ko koy toppee maanaam saful suukar saful xorom maanaam daal contumace bi daal na tëb bu ko defee ñu jugé waal li nga xamante ni rek moom mooy procès waaye tam ñu ngi xamal li nga xamante ni rek moom mooy teer bi daal dafa daal di euh, gaare dawul li nga xam ni tam moom mooy dakaar dem dikk itam dafa gaare euh, benn daw ci ñu ñëw rek ci information yi nga xamante ni rek dañ koo gisandoo ñun ñëpp euh, ci benn expert en vol li nga xamante ni rek noonu la décortiquer mbir mi ma liira leen ko rek daal di leen koy tekkil moom expert en bi daal lii la daal di xamle nee na nag le vol est une qualification juridique au sens du droit pénal, c'est la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à d'autrui, le fait de prendre le téléphone et de disparaître avec à l'intérieur de son domicile et cela contre le gré de son propriétaire caractérise pénalement un vol Madame Dal li ni euh, au sens du droit pénal mën qualifié euh, comme euh, vol jël alalu ci disparaître loolu mën nañ ko jappé ab satch mais li nga xamante rek mom la question euh, bi nga xamante rek espère euh, en vol bi la dadi di euh, posé moy La question qu'on peut se poser est de savoir si Ousmane Sonko n'a pas agi sciemment afin de faire arrêter et pouvoir invoquer

post bi nga xamanteni rek publier nako ci compte euh, Twitter l'ancien premier ministre du Sénégal apporte son soutien à l'opposant avant e, avant d'exiger la libération de celui-ci. Je viens d'apprendre l'arrestation de Ousmane Sonko. Je lui exprime toute ma solidarité et exige sa libération immédiate. Mom dal la euh, euh, pour rappel le leader de Pastif a été arrêté et placé en garde à vue vendredi 28 euh, juillet, muy euh, démb pour vol de téléphone portable de gendarme et appel à l'insurrection moom Aminata Touré dal, wane dal, daal li nga xamanteni rek mom moy détermination bi mu am ci mbir mi tam na pour jàppale Ousmane euh, Sonko ba nopi rek di exiger li nga xamanteni rek mom moy libération immédiatement parce que japp na ni li nga xamanteni ni ñu koy Ousmane Sonko teguñu ko ci dëgg teguñu ko ci yoon. ñu ñëw aussi ci information bi nga xamante ni rek ñu ngi koy soog jot ci ki nga xamante ni rek moom mooy Pape Alé Niang parce que démb euh, gis nañ ko euh, maanam à travers live bi mu doon def ci arrestation Ousmane Sonko bi jël na ay euh, témoignages yu bare bari ku ci mel ni maître Tall ak ñeneen ak ñeneen dem na bay bind ci page Facebook am naan le gendarme qui en direct sur TFM dit que gendarme était chargée de surveiller. Pro H24 afin d'informer de ces faits et Et le procureur, sur son communiqué, dit que la voiture de la femme gendarme est tombée en panne devant le domicile du pro Mon Pape a Niang dans loolu page Facebook am ne da am gendarme qui xamante en direct comme nga xam ni moom euh, TFM Mon nag dañ ko yebaloon euh, juste gendarme bi pour surveiller Ousmane Sonko H24 te li nga xamante ni tam noonu la procureur de la république bi daal di waxee naan euh, euh, maanaam euh, voiture oto femme bi dafa tombé en panne ci buntu kër Ousmane Sonko loolu amut mais nag moom Pape Alé Niang tamit li nga xamante ni noonu la xëyee. le matin nee na daal dañ ko convoqué tey euh, dimanche du moins dañ ko convoqué dimanche muy suba euh, section de recherche daal ñoom ñoo ko euh, convoqué mais daal foofu la yem xamaguñ nat lan moo waral boobule convocation mais daal dafa war a wuy ji suba foofu nga xamante ni rek moom mooy section de recherche ñu ñëw aussi euh, ci ki nga xamante ni moom mooy Juan di avocat wu Ousmane Sonko moom it nekk fële nga xam ni rek moom mooy euh, bitim réew moom nag démb daal dinay réagir ci li nga xamante ni rek moom mooy arrestation Ousmane Sonko bi euh, di xam ne rek ne Ousmane Sonko maanaam transféré na ko transféré nañ ko à la brigade des affaires générales au sein du tribunal moom robe noire bi daal loolu la daal di déclaré démb nee na nag muy mbir boo xamante ni nag maanaam doy na waax moom daal xamul bopp bi ak li nga xamante ni rek moom mooy euh, genn bi moom Juan Branco ñu ñëw aussi euh, ci ki nga xamante ni rek moom mooy euh, Sadio maane ginnaaw fan yi ñu génn li nga xamante ni rek noonu lañu gisee woon information yi dafa dafa war a euh, dem fi nga xamante ni rek moom mooy Arabie Saoudite maanaam mbir mi daal leer na nañ moom Sadio Mané daal dem na fi nga xamante ni rek moom mooy Arabie Saoudite fekk fa nag ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy CR7 ginnaaw nag ñi nga xamante ni noonu la ñu bindee information yi ñu ngi xamal rek moom Sadio Mané moo topp topp ci ginnaaw CR7 maanaam liñ ko fay ci ay koppar takku na takku lool milliards maanaam lañ ko euh, euh, fay ci li nga xamante ni rek moom mooy franc CFA moom Sadio Mané daal désormais mu nga fële nga xamante ni rek moom mooy euh, dëkku naar yi. ñu ñëw ci li nga xamante ni tam moom moo am démb fële ca Russie mu tàngoon jër ci sommet Russie Afrique bi nga xamante ni rek dañ ko fa doon amal ci présence su président africain yépp mu nekk nag waxtaan boo xamante ni dañ ko fa doon sekk ak président russe bi waaye nag mu am mbir moo xamante ni nag dafa daal di am ki nga xamante ni rek moom mooy président bu Burkina Faso bi di Traoré ba mu jëlee kàddu nat dafa daal di am ni mu waxee noo xamante ni nag neexul euh, président Macky Sall parce que nag moom dafa ni euh, président africain yëpp nekkeewuñ ci réew mi lu dul euh, yelwaan loolu nag dafa métti président Macky Sall ba tax na rek ba mu jëlee parole maanaam daal daf ko tontu rafetlu ko ci turam la jaar exactement daal di koy euh, remetre à sa place ne ko nag fii yelwaan amu fi maanaam daal moom ni nga xamante ni noonu la président africain yi euh, di euh, liggéeyee ak yeneen dëkk yi fu mu ci doon maanaam daal partenariat dégal dignité entre les peuples lay doon maanaam gagnant gaña da ngay da may liggéeyal ma liggéeyal la nga am ci ma am ci mais yelwaan amu ci te nee na pays africain yëpp maanaam dañoo mësa préserver li nga xamante ni rek moom mooy euh, sunu euh, dignité maanaam daal discours bi nga xamante ni moom lay tenir Sénégal moom lay tenir euh, Washington te moom lay tenir tamit fi nga xamante ni rek moom mooy Saint-Pétersbourg maanaam daal d'après ni nga xamante ni noonu la président Macky Sall daal di waxee daal da ko tontu ci li nga xamante ni moom noonu la adressé woo ak président africain yi traité leen ci li nga xamante ni daal neexu ko ba tax na daal moom tontu na ko bu baax a baax xamante ni rek moom mooy Russie ci sommet boobu nga xamante ni rek dañ ko fa amaloon euh, ci kanamu ki nga xamante ni rek moom mooy président russe bi waaye président russe bi moom lenn rek la ci daal di teg maanaam daal li nga xamante ni moom mooy bële bi maanaam yombalal na ko daal président africain yëpp. voilà ñu desandi ba tey ci arrestation usmaan Sonko bi démb nag gis nañ ki nga xamante ni rek moom mooy soxnaam di Anna Diamanka nekk koo xamante ni nag moom la ñu gën a xam à

¿no? ko seetaanandoo gis ngeen bu baax a baax moom madame Sonko ana li nga xamante ni rek noonu la réagiré daal di xataraayu à ce que rek ne boroom këram du génn ci li nga xamante ni rek moom mooy euh, kër gi waaye nag démb daal mu mel ni moom modam Sonko ana daal si euh, à travers euh, WhatsApp am daal mu ngi doon bind ay message gars yi nag ñoom ñoo ko capturé dinaa leen ko tegal benn par benn nee vivre une injustice et noppi ndax bañ a gaañ kenn ak metti aujourd'hui encore luñu def ëpp na euh, sama biir kër lañu euh, dajji daal di dugg ci biir c'est injuste et vous ne pousse et vous nous poussez à bout moom madame Sonko dool loolu la daal di wax nee na dëkk tooñ nag lañ nekk boobu ba tey yéen a ngi tooñ ñuy noppi boobu ba tey nag bàyyi woo leen moom madame Sonko nag nee na jigéen lañ booleeloon Ousmane Sonko jiiñ ko li nga xamante ni moom mooy viol bi yoon tamit jigéen lañ ko booleelaat mu di ko filmer ba lu ni daal di am moom nag ci kaw jigéen ñi la dal nee na daal lépp loo xamante ni rek moom moo am ci réew mi muy yàqu-yàqu ak lu mu mun ci doon daal euh, maanaam euh, jigéen moom moo ko indi kon nag ñun jigéen ñi nañu xoolaat bu baax a baax suñu bopp moom démb daal madame Sonko ana am na daal lu ko métti metti ba à travers ni nga xamante ni daal noonu la doon euh, euh, waxee daal nga gis ni kii daal dafa am lu ko metti torop waaye ki nga xamante ni nag moom moo bëgg démb du kenn ku dul Adji Raby Sarr mi nga xamante ni moom moo jiiñoon Ousmane Sonko li nga xamante ni rek moom mooy viol ak menace de mort démb na à travers benn vidéo ñu ngi ko gis moom aji saax euh, muy fecc ak kàppar ci li nga xamante ni rek maanaam moo dal ki nga xam ni rek moom mooy usmaan Sonko dinañ leen tegal benn extrait image bi ngeen daal di xool moom euh, Adji Sarr mbégte bi nga xamante ni démb ànd na ko ginnaaw bi mu déggee li nga xam ni rek moom mooy arrestation bu Ousmane Sonko. ami chers fidèles internautes di lañ leen indi loon seen biir revue de l' actualité comme ni nga koy defee tous les samedis bépp actualité bu ñeer réew mi rek fii la ñuy toog ci kàttanu yàlla daal di leen ci indi li nga xamante ni rek moom ngeen bëgg a dégg di leen jox rek daje incha bi rabbi lundi ci yeneen i actualité di là portez-vous bien et restez à suivre nos programmes sur VIP People